Khadija Ndir ñoom ñëpp ils sont en vacances euh, ñëw nag ànd ak seen tata bopp ñu ne leen ak seen parents yëpp nekk ci bopp waaye di am mbégte contentement ci fii ci Télé Futurs Médias kon Ndiaye Seck ak Ndeye Seck nuyu euh, bu baax di am bu baax di nuyu tamit euh, ki nga xam ne nag moom mooy Ndiaye Seck ak Ndeye Seck de la part de Atoumane gis naa ko am nañ mbégte contentement waaye di nuyu ñoom Ndama Soumaré Ndeye Wade Mamadou Soumaré Mariama Sow de la part de Mor Soumaré footballeur à Thiès am na mbégte contentement pénitentiaire ak ki nga xam ne mooy Karim Wade ci biir kaso bi pénitentiaire pénitentiaire kay jàppale ma damay dem tey tey tey moom xam naa tey dañ may jugé rek ñu bàyyi ma tey ñaanal ma jàmm pénitentiaire eh ñaana ma jàmm sa gémmiñ bi mun na def bañ a def jàmm bo loolu wóorul. yow yaa waxoon moo ci biti yaboo fa te ku la ci ba max doo jël kay. toogal léegi nii li ma safoon laay dindi sama bagage yi laay dindi de. Karim lii lan la. ah man su ma demee tey damay ñaan yàlla bañ a ñëwaat kat <laughs> pénitentiaire àddina amul solo ranger sama bagage yi lay def ñaanu ma yàlla duggaat fii koy ranger nii rek su ma ñëwaatee ma xool. fii nag moytu balaa jinax yi di tëb fii nii sama kaw. <laughs> jinax yi man ñoo ma dëkk. say xarit lañ. <laughs> yow say cousine ñu <laughs> pénitentiaire sa kanam gi xam nga la lay nuroo. laajuma la lan lay nuroo. li jëndil sa affaire à chaque a mu lay wax nga ne ma laajuma la ko. yamal laajuma la laa wax. pénitentiaire man du ma sonal laajuma la morom patu dàll la xam nga lan la bu ma sonal. du ma am lu ma naqari ba pare nga ñëw di ma teg yow di nga di nga gën a am lu la naqari ba nga dem ba jàkkaarloog juge bi. tey moom blanc lay may encore ñoo taxaw rek. defar bu baax tey Ibine moom a génn sama heure jot na. sa heure bu jotee du yow yaa ma koy wax oto sama yoon nekk si man maa la war a génnee fii xam nga Macky lu ko metti motard yi may topp ak gendarme may escorté ak mbedd bi may romb di wax Karim affaire bi yow la man yëpp loolu yëpp tey sama yoon man wax sa wax man Macky Sall sama yoon nekkul si moom yow moom moo lay fay parce que état bi ngay représenté loolu yëpp bu ko lijjanti lijjanti sa affaire nga bàyyi ma sa bët yu ron yi sama bët yi bu ron yow sa kanam gi ñu ra seku bu ñu muusal seku bu ñu muusal yow yaay sekk bi xanaa yaa ko muusal man taluma wax xam nga la nga war a sama sa los bu gàtt bi di mel ni doo daan dama bëgg nga noppi man laajuma la laa wax Karim laajuma doo daan doo daan xool nga fii ba sa yu weex yi ngay mel yi nga saxaloon ca euh, corniche bi man da xula ak yow man waxuma ak yow su ma nekkee président di nga xam ne keroog di nga am na la métti ci dëkk bi laa lay génne yow nga yow nekk président Gambie laa lay yóbbu yow doo waa kay ma dem sax si Yaaya Jammeh dem fa nga dem fa naan bu ma nekkee président man du ma ak yow li la naqari teguma la ko laajuma laajuma sa morom yëpp ay madame la ñuy ñëpp ñu ngi bind madame yow de li la naqari ko sa morom yëpp a ngi toog seen kër di gérer ñu tëj la si sa ngono bi sa ngono sekk bu ñu muusal bi ngay wax fii la yow am na ay gel yu ñëwoon di ma seet fii pour yow man aw may gel gel am na gel de man damay dund sama dund de am na gel su ma gel ak yow uti na ak yow dégg nga yow man laajuma la laaw xoolal man dama téye sama ñaambur de boobu maa ngi toog jàpp sama ñaambur jàpp sama yàlla kenn jigéen fekkuma fii defuma dara bàyyi ma ma la songee du baax de. <laughs> turki jam nga ne. su ma la songee du baax ci yow. yow wéroo. kan yow wéroo. ba sax tey moom sama dàll bi lay.